bi tey di la yëgal rek ne ci sama àdduna mhm. amut lenn loo xam ne euh, dama koy réccu mhm. bépp décision bu ma jël décision bu ma mûrir la et li am solo du man suma jëmm mhm. mooy principe yoo xam ne moom la ñuy xeex jëf yoo xam ne moom la ñuy xeex li am solo pour man mooy Sénégal ak fi ñu bëgg jëme Sénégal kon d'accord aw ma benn xam nga pare non benn mais xam nga aussi dafa am ay décision yoo xam ci politique pour man boo ko jëlee itam dafa faw ñu taxaw seetlu ko parce que Yewwi Askan Wi maa ngi fàttaliku bi ngay budde seen rencontre boobu ci ay problème mu couleur rek ay problème mu logo euh, tey nga gis jéego yi nga xam ni Yewwi Askan Wi def na ko jéego yooyu ñu gis ni yow ak sa coalition daanaka defu leen xaaj bi moo tax ma bëggoon xam rek ndax amuloo dara loo ci regretter tey est-ce que bu doon démb la décision yi nga jël ci bañ a bokk ci Yewwi Askan Wi di nga ko def. Euh, Pape Ngagne. Mhm. wutaluma sama bopp. Mhm. wutuma pal pour man sama bopp. Mhm. li may wut pour Sénégal la. jàpp naa ne euh, décision bu ñu jël rek décision bu ñu mûrir la comme lu ma. loolu wax nga ko. ci biir coalition la ñu nekk. lépp lu ñuy jël des koy waxtaane mhm. ku nekk joxe ci xalaatam li am solo mooy dem nañu élection locale mhm. natt nañu suñu bopp ci natt googu ñu natt suñu bopp am nañu deux vingt deux mille voix deux cent vingt deux mille voix yooyu boo ko méngalee ak ñeneen ñi nekkoon ci yeneeni coalition nga xam ne suñu borom. cëral 200 yooyu Bamba Fall nee na nga génnee ko ci. Bamba Fall euh, la la mu yóbbu woon nanguwaat naa ko. non nee na nee na nga génnee ko ci. Euh, xam nga ni nee na nga génne ko ci. donc booy calculer. ne nee na nga génne ko ci parce que circonstance moo leen boole woon après jeex na. Euh, xanaa kon circonstance moo taxaat Benno Bokk Yaakaar ñu duma ko Médina ci législative yi weesu circonstance moo tax Sicap ñu dumawaat leen fa mm-hmm. circonstance moo tax pikin ñu dumawaat leen fa. circonstance moo tax saare bii ji ñu dumawaat leen fa circonstance moo tax kuusi ñu dumawaat leen fa dama bëgg nga xam ne fépp fu ñu jaaroon Malika Kër Masaar fépp fu ñu demoon ronqi suñuy nit képp ku demoon bennoo jóg gi ñu jóg tax na ñu duma la duma Benno Bokk Yaakaar ngir wan leen ne sénégalais yi dong ñoo yor kàddu ki jóg voteel gëm sa bopp kooku buggutoon votel Benno Bokk Yaakaar kon bu ñu leen trompé escroqué leen jël seeni voix yóbbu ko ngir troqué ko ak leneen lu mu mën a doon heureusement que am nañu un peuple boo xam ne c'est un peuple souverain okay. ce qui s'est passé à la Médina moom moo xaw xew fépp foo xam ne Benno Bokk Yaakaar wala Macky Sall jaar na fa ronqe suñuy nit mais dama bëgg rek nga xam ne encore une fois euh, Pape Ngagne Euh, man dama bokk ci ñi jàpp ne lu suñu borom def rek dafa fekk mooy li gën mm-hmm. bu du toon élection locale yii ñu weesu du ñu xam nu gëm sa bopp toll du ñu xam lan mooy dayoo gëm sa bopp ba mu mun a jaaxal ñu yor réew mi ba ñu ñuy jéem di galgal li am solo mooy tey suñu borom wane na ne gëm sa bopp c'est une réalité malay leeral rek ne pap gëm sa bopp mouvement la maanaam bu doon ku nekk ci ëtt wi ñu ne gone la guy daagu buggaan nga baal ma mais est-ce que juumuloo ci fi nga bëggee a yóbbu gëm sa bopp parce que ci ay élection ay baromètre